bi ci njëkk mooy gàmmu mooy guddi gi yonte bi alayhi salaatu wasalaam feeñoon moom la borom xam-xam yi def at mu ne saa yu del see ñu màggal ko loolu nag ginnaaw yonente bi lañ ko tàmbali am na ñu ne ci atum maanaam ci téeméeru at bi ginnaaw yonente bi mu amee ba yonente bi demee ba teg ci lu mat ñeent téeméer at ci la tàmbali am ñu ne jiitu loolu ba mu demee ba teg ci ñaari téeméer at rek ci la tàmbali lu ñuy wax loolu waaye lu mën a xew ginnaaw yonente bi lañ ko tàmbali waaye borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ko sos ak ñi ñëw ginnaaw ba mu tàmbalee ba léegi moom gàmmu ñëpp a maase ci ne jëf ju rafet la ju am solo ju am tiyaaba ju mat di def ci lañ leeral itam mbir yu am solo yoo xam ni ci kum leerul ci yow maanaam islam dañ ci am jafe-jafe ci yu bari bari maanaam yonente bi alayhi salaatu salaam dëgg la nii nu koy màggale nii ci daje ci penc di jàng alxuraan ak xasida ak tagg yonente bi ba bët set noonu defewu ko noonu moom yonente bi alayhi salaam am na beneen méthode bu mu ko màggale moom waaye li may njëkk leer rek mooy borom xam yi dañoo yàgg a maase ci ne lislaam dafa am ay mbir yoo xam ne dafa sax ci lislaam mooy mbir yoo xam ni lu baax la nga xam ne yàlla cee woote jëm lu mel ne tudd yàlla yàlla da cee watu jëm lu mel ne lépp luy dëgëral positif bu xol te nga jaare ko ci lu neex yàlla yàlla da caa watu jëm ak yeneen yu bare bare bare yoo xam ni saa yoo xam ne li ngay def lu yees la yonente bi defu ko woon waaye luy lu lu mën a tënku lu mën a dugg ci biir la yonente bi daa def la kenn du la yedd li ngay def ci sunna lay tudd moom la yonente bi doon wax naan man su man sanna fil islaami sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yom ila yowm alqiyama xadis bu gudd la mooy dafa wax ne képp koo xam ne sos nga sunna su yees maanaam sunna foofu kenn ko tuddee dundalaat sunna sanna sunnatan xasanatan mooy sos sunna su yees loo xam ne yaa ko njëkk a def ci lu baax nee na loolu yonte doo xam ne loolu da nga am tuyaaba ja te ku la ca roy it ila yowm alqiyama lu mu ci am ci tuyaaba di nga am juri toll yow xadis ba la ko jeexal mooy man sanna fi l islaami sunnatan sayyi'atan fa lahu wisruha wa wisru man amila biha ila yawmi alqiyama maanaam képp koo xam ne sos nga itam sunna soo xam ne baaxut wala jëf ju bon nga njëkk koo def ila yawmi diin ku la ci roy it yow di nga am bakkaaru la nga defoon te ila yawmi diin it ku la ci roy bakkaar bu mu ci am yow di nga am buri toll foofu nag borom xam-xam yi dégg dégg kon ne lu baax sent ko njëkk ko def dara nekkut tegloo tegloo nañ ci itam yu bare bari mooy mën naa ci wax ñett rek ci lu gàtt te maa ngi ko wax mbokk mi mi doon laaj mooy mis masalan ki ñuy wax xubayb te nettloo naa ko fan yi jàll waa Màkka bañ ko jàppee moog Zayd ibnu Zafinata xam nga bañ ko daataaree da leen wax ngeen mayu ma julli ñaar rakka ngeen doog ma faat ñu may ko mu julli ñaar rakka ginnaaw ba ñu doog ko faat julli ñaar rakka njëkk ngay faatu ginnaaw keroog la doon sunna nga xam ne képp ku ñu rey xaw nga ñaan julli ñaar rakka doog a ñu doog la faat jëmmi nag gis nga ñaar rakka yooyu nga xam ne kon xubay bu moo ko njëkk a sunnal te yonente bi digalu ko ko te ba mu ko yëgee da ca ànd Bilaal ibnu Rabaax yonent bi mas naa xëy ne ko yow kat biig dama laa gis àjjana dama dégg sa tàng sa dàll yi di yëngatu ca biir àjjana loo def ba jiitu ma bi ma sabaqtanil janna loo def ba jiitu ma fa àjjana noo def ba dugg fa nee na Bilaal ne ko man kat faw ma lenn lu may war a def lu may war a yóbbu foofee noonu ne xanaa lu may ne yaakaar leen daal laa am yaakaar ci li may def mooy fu sama njàpp tojee dinaa jàppaat te bu ma jàppee faw ma julli ñaar rakka doog a def lu may def maanaam jàpp rek foo jàpp julli ñaar rakka yi naafi la loolu bi daal da ko daal def te yonent bi diggalu ko ko te ba mu ko digg ba mu ko dégg itam gis nga wax ko ci dara yeddu ko wax ko ne li nga def baxut maanaam ci lañ dégg ne kon loolu xam nga bi daa la ko jekki-jekki sosal boppam ci jaamu yàlla ak ñaar rakka yi ak yu bare bare bari wax naa ci maanaam xubayb wax naa sayidna bilal seetlu bu fàtte nga bu ma la waxoon keroog ñett laa laa la waxoon ayo yonent bi mas na mas na mas na mas na mas na julli ci jàkka ji ba mu sën ba mu waxee sami allahu liman hamida am kenn ci ginnaaw ko wax ne rabbana wa laka alhamdu hamdan kasiran tayiban mubarakan yonent bi daa sëlmal rek daa ne ana ko wax wax jooju waa ji ne ko maa ko wax de mu ne ko daal yow li nga wax seddoo ko ay malaayka yu bari laa gis ñu koy njëkkante kenn ku ne bëgg koo njëkk njëkk bind te waa ji li mu def ci biir julli gi la ko def te yonent bi diglu ko ko xanaa ci lañ dégg ne lépp loo xam ne lu baax la lu dugg ci biir lislaam xam nga yonent bi bi mu wax bi daa dafa wax ne man ahdasa fi amrina hada maa laysa minhu lu ci bokkut ahdasa fi amrina hada maa laysa minhu lu ci bokkut ku ko ci dugal foofu wa radd maa loolu mooy bi daal ku ci bokkal nag lu ci bokkoon ba noppi nag kooku amut lu la kenn di wax lu may sant la ci te yàlla dina ci defal tiyaaba ñaareel bi itam jamono ji day dégg day dégg ñoo xam ne dañuy bari wax nangam yonent bi defu ko woon fekk loolu borom xam ne dañuy yàgg wax du waxi xam-xam maanaam koo gis mu ko war xam ne xam-xam soriwul dafa am benn kenn ci borom xam yi koo xam ne kenn rek la suñu wax Ibnu Taymiyya moo njëkk a tàmbalee tegtaloo loolu te tegtaloo ko itam ci bërëb yëpp waaye borom xam yëpp dañoo maase ci ne bu ñu waxee sunna mooy lu yàlla mooy lu yonte bi wax mbaa mu jëf ko mbaa mu saxal ko yooyu la ñu tuddee sunna waaye lu mu defut loolu loolu tekkiwut ne dafa xaram wala dañ ko aaye dañ ci joxe misaal yu bari bari mën naa ci joxe misaal ci lu mel ne yonte bi mën naa bàyyi dara ngir aada kese rek ci misaal mas nañ koo indil am mbët muñ defar ba mu ba mu ba mu ba mu sot xéwal gu neex bi ñuy yónte bi mu raxasoo ba nar a dugal loxoom alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko lii yàpp yu mbëtt la mu daal di seetluwaat loxoom ñu ne ko waaw dafa xaraam wala lu tax mu ne de xaraamut man dëkk ba ma dëkkoon muy màkka mbëtt dawunu ko fa lekk moo tax man neexuma xadis bi mi ngi ci saxiixu Buxaari saxiixu Muslim yëpp nett nañ ko ñoom ñëpp loolu borom xam ne dañ cee tegtaloo ne kon yonte bi donte daa bëgg a def dara ba mu yàgg ginnaaw mu bàyyi ko loolu tekku ne loolu dafa aay fi ne ñaareel bi itam yonte bi mbir mi naqari ko même mbir mbir mu ko naqari nga xam ne neexut ci moom wala boog da koo soof ci misaal comme li wax ci xadis bi ne lakinnahu lam yakun bi ardi qawmi fa ajiduni aafuhu maanaam mbir mi damaa soof maanaam yàpp bi damaa neexut yàpp yàpp mbët donte da ko soof yi loolu tekku ne dafa xaraam masalan am na feneen fu mu gën a leer mooy masalan léeg-léeg yonent bi bàyyi dara ngir ne da ko fàttee def rek ci misaal mas naa am ak julli muy julli ba mu yàgg mu am lu mu fàtte ci biir julli gi lu mu bàyyi saxaaba yi laaj ko waaw julli yi daa soppi ko wala lu tax mooy leen julli soppi ko fa mu nekkoon la ne man loolu damaa fàtte woon rek den ma waroon sabbal waaw loolu ca lañ jógee saa yu fàtte ñu koy sabbal léeg-léeg itam mu bàyyi dara moom yonte bi ngir bañ ñu farataal ko ci ci ci ja ci kaw jaam yi xam ngeen ne julli julli na fi lay koor yi yi ñuy ànd nii yonte bi de defu ko maanaam daa génn ci jàkka ji di julli ay fan julli na fi la koor ñetteelu fan bi saxaaba yi tàmbali bëgg ko cee bëgg ko cee roy maanaam bëgg ñëw ànd ak moom julli te ñeenteelu fan ba ca la ca la bàyyi julli ci jàkka ji nga xam ne néegam lay jullee ndax day bañ su ko defee day doon farata nga xam ne faw nit ñëpp dañoo war di julli naafila ci jàkka ja Seydina Omar moo njëkk a dajale nit ñi ñuy julli ñuy julli naafila tarawih yi ñu def ci kor ba mu ko defee itam ba noppi dafa wax ne ni'matul bid'atu hadi lii biddaa la waaye biddaa bu rafet la moom la Seydina Omar wax léeg-léeg yonent bi bàyyi dara itam loo xam ne daa da koo juttoon na maanaam da da cee xelama ci demutoon ci misaal li may nett lu ñuy nett lu bari bari mooy xam nga ci jàkka ji dara naafil dara xutba di taxaw ci ci benn dàttu garab keroog bi seen soxna ñëwee xamal ko ne ko kat mën nañ laa defaral ab mimbar yonte bi da caa daal di ànd ne ko ma defar leen bañ ko defaree mu bàyyi dàttu garab bi di taxaw ca mimbar bi loolu tegtal na itam lii kon bàyyi gi mu bàyyi woon mimbar du cegee ne mimbar dafa xaram waaye xelama ci dajutoon ba ko kenn njëkkee xalaat bi mu ñuy wax ko ko da ca ànd muy dem lu bare bare masal ci lislaam sax nag dañuy wax ne xaraamal mbir xaraamal mbir ci misaal maanaam yonent bi daal amut fenn ci ci lislaam ci gàttal rek fu mu bàyyee dara loo xam ne bàyyi gam ko bàyyi daa tax loolu xaraam loo gis ne la yonent bi defu ko te loolu xaraam xamal ni beneen mbir da cee ne boo xam ne moo ko xaraamal ndax boo seetlee boo seetloo lii tax mbir a xaraam ci lislaam fi mu ne benn maanaam ak ker lay doon maanaam laa tafaalu nangam mel ne laa taqrabu zina ak laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatili nga xam ne ak tere moo moo ñëw ci waxin yi ibaara bi loolu foofu lañ jàpp ni loolu kon dafa xaraam wala boog baatub xaraam ñëw ci mooy lu mel ne xurrimat alaykum maytatu baatub xaraam ci moom wala yàlla tëg ko ci wala mu ŋàññi jëf yi ñett yooyu bu ci amul kenn du jàpp mbir moom mbir mu xaram ma ne li wax ne man xaccana man xacca fa laysa minna maanaam ñaari ñett yi mbir yi bu amul ci ci jëf atte boobu kenn du ko jàppi lu xaram ma maanaam bara mu xaram faw kenn ci ñett yi am ñaari bi tam yàlla dafa wax ci alxuraan ne wa ma aataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu maanaam li leen yàlla li leen yonte bi indil digal leen ko def leen ko li mu leen tere bàyyi leen ko waxul nag lu mu bàyyi moom lu mu defut moom rek dafa xa dafa maanaam dafa xaram loolu dugg ci yonte bi sax dara wax ne moom maa amartukum bihi faatu minhu mastataatum wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu lu ma leen digal def leen seen tam kattan lu ma leen tere nag ngeen bàyyi waaye waxut benn yoon ne lépp loo xam ne defuma ko rek xaraam na ci jullit loolu mënoon naa ko toog mu mu bare bare bare bari am na borom xam yu bari yoo xam ne bind nañ ci waaye kon day leer ci sa bopp ne naa yonente bi defut nangam rek loolu doyut ci tegtal ci ne lii baaxut yonente bi lim defutoon fi ne nii dañ koy def ci diine kenn xamul lu mu toll islaam dafa am ay ay ay ay ay usul ay cosaan yoo xam ne ci la atte yëpp dell lépp lu baax lu dugg ci biir atte yooyu ak cosaan yooyu rek lu baax maanaam atte cosaan lay lay lay am li ñu tudde bidaa mooy loo xam ne bokkul ci lislaam aslan nga xam ne lu yees la masalan julli juróom nga bëgg ko yokk geneen julli muy muy juróom benn julli masalan nga xam ne jàpp jàppe ko farata boole ci kooku mooy mooy mooy la xaraam moom la ñu tudde bidaa itam wala boog nga ne kat sama dëkk bee ne na may aji ji màkk foofu laa fay aji ji maanaam ak aj nga def ko ci ci beneen bërëb bu bukk rek màkk ci misaal wala nga woo nga tam ngay woor weneen woor weneen weer wu bokkut ak ramadaan masalan wala nga soppi comme li li ma li ma dégg maanaam ñoo xam ni bu toog fan jotee nga dog ak yu demee yu mel noonu xeeti mbir yu mel noonu la ñuy tuddee bidaa mooy loo xam ne lu yees la nga xam ne yonte bi dawu ko defee noonu bu dee lu mel ne nag lii nag muy li ñuy wax gàmmu borom xam-xam yi bari nañ ci tegtal borom xam yëpp mën nañ ne ijmaa la borom xam yëpp ci marché dëppoo ci ne waxuma la baax waaye dañ ko sopp muy lu am solo loo xam ne tuyaaba ju rëy moo ci ne loolu mooy borom xam-xam yi lislaam yi nag waaye gaa yu baax yi nga xam ne nag ñoom la yàlla may ñuy awliyaw yi ñoom moom dañ ci waxaat yeneen mbir yu bare bare bari yoo xam ni incha allah buñ ci àggee ci sëñ bi diggante ma gàmm dinaa ci leeral moom lim ni mu ko doon waxee te lépp muy loo xam ne ko gis xam ko muy lu wér yu nekk ci gàmm ci tënk rek tegtal yi ñuy tegtaloo bokk na ci mooy ki ñuy wax imaamul Buxaari dafa nettali xadis bi ñeneen ñu bari nettali ko itam mooy ki ñuy wax ibnu Hajar ibnu al Asqalaan nett na ko ci Fathul Baari ak Abdurasaq Razaq as-San'aani nett na ko ci Musannaf Abdurasaq boobu bi bi mu def al al imaamul bayhaqi nattali ko ci dalailu nubuwa ibnu kasir nattali ko ci siira nabawiya ak ibnu daybai ak al imam al baghawi ci sarxu sunna as suhayli ci ar rawdul unuf al amiri ci bahjatil mahafil ñi ñëpp nattali nañ ne yonente bi alayhi salatu wasalaam ki ñu wax suway ba nga xam ne dafa bokk ci ñi ko nàmpal te suway ba doonoon ab jaam boo xam ni abu lahab moo ko moomoon ba yonente bi gane àdduna nag suway ba dafaa nekkoon nga xam ne ba ko soxna Amina nampale moom moo ko njëkk a nampalaat moom suway ba waaye dafaa jóge nag dem xibaar ko ka ko moomoon sangam boobee mu ci ñëw Abu Lahab suway ba bi mu waxee Abu Lahab ne ko sa doomi mbokk ma maanaam sa mbokk mi maanaam muy Abdullahi soxnaam sa am na doom muy soxna Amina Abu Lahab da ko goreel ne ko léegi doonatoo jaam gor nga da ko li li ñuy wax liber liberté am la ko daal di may goreel dama ko goreel nag ginnaaw bu Abu Lahab faatoo wax na ne ba at ma delsi rek bu ba ba Badar weesoo rek xare Badar ba mu weesoo rek fan yooyu ci la Abu Lahab faatoo at ma nag ba mu delsee nag ki ñuy wax Abbas di bàyyi bu ndaw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam da ko gént gis Abu Lahab nekk ci melawu doy waar Abbas laaj ko waaw ci loo ne mu ne ko man ci coono rek laa ne kenn xamul fu mu foo xam maanaam fu ma koy mbir yu métti daal ci laa ne daal ne ko nag leen daal laa am mooy altine bu ne danañ ma woyofalal mbir mi danañ ma génne woyofalal ma mbir yi am na riwaaye boo xam ne doo xam ne danañ ma defal af ndox su sedd ci sama baaram bi ma ma muuc altine bu ne loolu li tax ñu ma ko defal mooy goreel ga ma goreeloon sama jaam boobee suwoy ba te ba mu nee ma Seydina Muhammad gane na àdduna maanaam bëgg ma ci bëggoon ba goreel ko ci la ma yàlla faye loolu nga ne altine bu ne ñu woyofal ko dégg nga am mbugal mi tuuti delluwaat ko ci foofu nag borom xam yëpp dañoo maase balloo fi ci ne yow ginnaaw kii ab yéefal boo xam ne yàllaa ko maanaam wax mbiram ci alxuraan tabbat yada abi lahabin wa tabb maa agna anhu maaluhu wa ma kasab sayasla naaran daata lahab masalan wax ne moom dara mënatu koo jëriñ dara faw mu ma dugal ko sawara tëkku ko te bég gi mbégoon ci gudd juddu yonent bi alayhi salaam ñu fay ko ca lee mooy altine bu ne ñu génne ko sawara woyofalal ko tuuti kon kay jullit bi nga xam ne moom dafa gëm yàlla weddiwu ko nekk ci lislaam at mu ne mu mu màggal gàmmu gi bég kooku kay la ko ci yàlla fay xam nga ne du weesu altine moom moom at semaine bépp la lay far maanaam mu dal ci sawara rek loolu ibnu nasiri diin ad dimashqi moo ko wax di borom xam ba xaafis la xaafis al xaafis ibnu nasiri diin ad dimashqi moo ci def ay bayit ci téeram bi mu tuddee al mawridu saadi wala mawridu saadi rek fii mawridil haadi dafa wax ne ida kaana hada kaafiran jaa zammuhu wa tabbat yadahu fi ljahimi muxallada ata annahu fi yawmi lisnayni daiman yuxafafu anhu bisururi lissururi bi ahmada fama zannu bil abdi alladi kaana umruhu bi ahmada masruran wa maata muwaxida parce que kii ab yéefar la yàlla xas ko maanaam wax tëkku ko ci alxuraan wàccew saar ci moom dëgg gi mu dëggoon ci juddu gi yonent bi alayhi salaam ñu faye ko ci altine bu ne ñu woye falal ko mbugal mi kon jullit boo xam ni weddiwut yàlla gëm sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di béggee ci bisam bi nga xam ne moom la moom la ganoon adduna maanaam dëkk dëkk ci yonent bi alayhi salaam rawatina bu gàmmu ñëw na ñu daje feeñal mbégte moomu nee na kooku kenn amul sikkre moom yàlla lañ ko ci faye mooy texe goo xam ni adduna bi ak àllaaxira rek loolu ci yàlla fay ginnaaw yéefar lay fayelee kon ab jullit wax waxi noppi waxoon naa xadis bi ñi ko nett ñëpp gis ngeen ko di borom xam muy lu sax beneen tegtal bi mooy yërnde bi ci moom moo daa màggal bisu bisu gàmmu ni mu ko daa màggale mooy li abu qutaada qutaada wax ne damaa laaj yonente bi ne ko yow damaa gis ngay woor altine altine bu ne lañ lay jënd fi altine bu ne nga woor neen yonente bi dama li tax ma koy def mooy daaka yawmun wulidtu fiihi wa fiihi unzila alayya bis boobu altine boobu ci laa gane àdduna moo tax te it ci la ma jibril njëkk a dikkal maanaam wax ma li ma yàlla yónni ñaari la la wax moo tax muy woor muy woor altine moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu it borom xam-xam it teg tegtal fi ne boo gisee li mu njëkk wax mooy daaka yow mun wu def fii bis boobu ci laa jubbi ñu xam ne kon bis ba mu ganoon àdduna lay màggalaat te ni mu koy màggale mooy da koy woor façon boobu la koy defee xam nga màggal mbir kenn ku ne na nga koy defee am na ñoo xam ne màggal mbir nañ koy defee mooy bernde am na ñoo xam ne jàngal xuraan lañ koy defee ak xasida am na ñoo xam ni niñ koy defee mooy jàng xasida di ko yëkkat kenn ku ne ak ni mu ko def léegi nag yonte bi moom woor bis boobu moom noonu la noonu la noonu la ko doon màggal am na benn tegtal boo xam ne Jalaaluddin Suyuuti moom da wax ne man boobu tegtal sax moom moom laa ci sukkandikoo ci gàmmu tegtal bii ma wax nii léegi Ibnu Hajar Asqalaani day wax ne man moom laa ci sukkandikoo waaye Jalaaluddin Suyuuti day wax ne moom tegtal bi mu sukkandikoo mooy yonente bi bi mu demee ba lislaam ñëw dafa reyaat am xar bis ngéntewaat boppam maanaam loolu kon ba tey feete bis ba mu ganewoon adduna ci la bokk maanaam màggal bis ba mu ganewoon adduna ak ak ak feete ko ci la loolu la ak it beneen mbir mooy yàlla ci boppam moo wax ci alquran ni wa ma wax yónente bi ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamina mooy dama laa yónni nga nekk yërmaane ci biir mbindeef yi nga xam ne mboolem yërmaande yàlla yonente bi moo ko représenté mooy mooy li li jëmma yërmaande yàlla yërmaande yàlla ci kaw suuf moom yonente bi alayhi salaam te yàlla wax na itam kuy bëgg la la gën a am solo ci mbégte ak boo bëggee bëgg wala ngay feete mbir la ci ëpp solo ci li ñu war a feete ak li ñu war a bëggee mooy yërmaande yàlla bëgg qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika fal yafraxu loolu la alxuraan wax loolu it borom xam yi kon tegtal ne ci ne loolu rek doyoon na cëslaay ci maanaam tegtal yi nga xam ne ci lañ sukkandiku ba def gàmmu bokk na ci itam yonente bi alayhi salaatu salaam bi mu ñëwee Madina bi mu ñëwee Madina dafa fekk yahood yi di di woor bi sub asura xadis yi mu wax yëpp wér na mi ngi ci saxiixay ni li ñuy wax saxiixay ni nga xam ne mooy asaxu xadis boo xam ne imaam Buxaari dëppoo na ci ak imaam Muslim donte mbirum xadis ñi ko xamut mën na leen a jaaxal ci liñ ci waxee noonu waaye xadis yi mu wax yëpp wér na ñëpp ci dëppoo kenn sib ko la yéen tey bi mu ñëwee ci Madina dafa fekk yahood yi di di woor bisub asura nee na mu laaj leen lu tax ngeen koy woor ñu ne ko ci bisub asura ci la yàlla musale woon Muusa labaloon noonam ba Firawna yonente bi ne leen nahnu awla bi Muusa minkum maanaam Moussa noo leen ci gën a yey yéen yahud yi maanaam yéen fekkee dañuy màggal bis boobu ngir jàpp ne dañu a jege Moussa nun noo leen ko gën a jege moo tax yonent bi da ko daa tàmbalee woor moom asura digal jullit ñëpp ngeen koy woor loolu borom xam-xam yi dañuy daa tegtaloo ne kon maanaam bis boo xam ne xéewal da ci amoon ci aw nit nit ay aw nit bu leen yàlla defalee xéewal bu mag ci benn bis bis boobee ñu di ko màggal saa yu delsee lii ci lay la ci ndax bis ba bis bisu asura xam nga ñoom dañoo wax ne ci la yàlla labale woon firawna musal Muusa ci noonam ba dimbale ko ci moo ña gëmoon moo tax ñoom ñu koy màggale at mën nañu woor ko yonente bi moom bi mu déggee loolu da wax ne noo leen ci gën a yey ci Muusa tàmbali moom di ko woor wax jullit ñëpp di leen ko woor ci mujjëm dafa wax ne bu ma fi déwén fekkee dinaa ca boole taasuwaa mooy bañ ne su buñ ne su wala tam xarit ndax wuuteeg yahood yi borom xam yi dégg ci lañ ci lañ ci lañ tegtaloo ne kon bis bi nga xam ne da nga ci am xéwal sañ ñi ci sant yàlla at mu ne saa yu desee loolu tis lay lu lu mag la mooy lii na am li nga xam ne moom lañ def ci Tuubaa rek ba tey yi yi ma wax nii rek mooy tis lay maanaam màggal Tuubaa mooy tis lay mboolem bis yi nga xam ci lislaam yëpp borom xam yi ci loolu lañ sukkandiku am na ñoo xam dañuy wax ne màggal gi ak ak ak fonk gi baax na waaye nag wutal bi nga ko wutal jamono at mu ne nga di ko def ci waxtu woowu mooy jafe-jafe bi loolu borom xam-xam dañ leen cee tontu dañ leen wax ne yonent bi moom daana def samedi bu ne mu dem jàkkay Quba Quba ak Madina ca buntu ba la ay ay diggante bu bu bu sori la nga xam ne samedi bu ne dana dem jàkkay Quba daa di fay julli moom yonent bi alayhi salaam dil siwaat Madina par samedi la ko doon def. léeg-léeg buy dem war léeg-léeg buy dem dox te xarit ba mu ngi ci ak saxiixa yi ni ba tey borom xam-xam yi tegtaloo ci ne ak jaamu yàlla nga wutul ko jamono itam xadis boobu moo ci tegtal mooy ginnaaw yonte bi samedi bu ne dana dem Quba julli fa dem siwaat te par samedi rek la koy def du ko def beneen bis ñu xam ne kon ginnaaw jaamu yàlla googu moom du ko wutal jamono ak waxtu ak bis loolu tegtal la ci ne ak jaamu yàlla mën nga ko wutal jamono ak waxtu ak ak bés ak yeneen yu bare bare yoo xam ne bu ma ko toppoon ni dana gudd xëy na waxtaan naa ko bu yàggul rek ci al almuridi bu isbu tarxee yi incha allah ku ci am ab laajit maanaam boo boo kee ñu leeral la ko waaye amul amul jafe-jafe maanaam ijmaa la am dama bañ mu gudd ndax li waxtu bi daa dem waaye man damaa wax maanaam yi may tegtal yi may indi mënoon naa ci indi lu mat fukk doog laa indi borom xam bi ñoo xam ne ñoo ci ànd masalan fukki xar yo fukki xarno gi ñaar yu west ci hijriya ñaari borom xam rek ñoo xaw a am fekk ci mbirum gàmm mu ki ñoo imaamul fakihani di ab maliki ak imaamu shatibi shatibi ñeen borom xam yépp dañ ci ànd am na nag ñaari ñoo xam ne moom dañuy déng-déng ku mel ne ibnu taymiya ak ki ñuy wax ibnu taymiya kese rek sax ndax ibnul xaaj moo def al madxal moom dafa yi yi ñuy def te baaxut ci biir yi nga xam ne ñenn ñoo koy def ci biir gàmm te baaxut yooyu la yooyu la yooyu la ŋaañ ñi naqarlu ko waaye jëmmi gàmm moom mu ne du am solo Ibnu Taymiya itam dafa wax ne ku koy def jublu cee màggal yonent bi kese ak bëgg ko kese tax la ko def da nga ci am yoon da nga ci am tiyaaba moo tax borom xam yi wax ne moom bokku ci ñi ko aayal donte dana ŋaañ yi bare bari ci ci mbir yi ñuy def te ñi koy ñi ci wax yi lu ci bari ay taalibeem lañ moom waaye borom xam yi ci def yépp dañ cee màgg loolu amoon am naa ci liste bu gudd boo xam ne moo ko doon liir fii day day day day day day gudd waaye xufaas yi ñu ngi tàmbale ci alxaafis ibnu daxiyata ak shamsuddin ibnul jazari nga xam ne mboolem ilmul qiraat yi ci moom la ñuy dellu ibnul jazari ñëpp xam nañ ko alxaafidul qasalaani alxaafis assaxaawi ak imam ibnu xajar al asqalaani nga xam ne moom la ñu daa tuddee amirul muminina fi lxadis maanaam ñeenti téeméeri junni xadis la ñu wax ne moom la ma ko ak alxaafiz al iraqi moom ñëpp xam nañ ko ku gëstu ni xam xam xam nga ñi ma wax ni ak ismail ibnu kasir alxaafiz ibnu kasir ñëpp kenn ku ci ne am na ay wax na raf maanaam gàmmo am gu mu am solo wax ci tuyaaba ji ci ne ak it sopp gi ñu sopp ñëpp war ko def bu dee fuq mboolem ngir yi itam ngir yëpp maase nañ ci maanaam ñeenti ngir yëpp bu ci ne itam mënoon naa la indil ay tur yu bëree bëri yu kenn xamul nu toll kon daal loolu mooy gàttal gi mooy borom xoom yi amuñ jafe-jafe mboolem ñu ñi nga dégg ñu koy sikkim ñu ci bari ginnaaw fukki fukkeel bi xarnu ak ñaar jëm suuf la te ñooñu ñu ci bari daanaka ay gaay lañ yoo xam ni benn ay boobu wax bu mën a tooñ sama classe yi ñoo xam ne yow sam njàng du du du sori lool man ngaa wax arab yu jub nii ara dégg arab ak l'islam bokkuñu maanaam l'islam du dégg arab kese l'islam ay xam-xam la yu bare bare bari yoo xam ne ngir ñu tuddee borom xam fi ne lu jafe-jafe jafe la jamono ji na xëy na xam-xam coow moo tumuranke ba ku jug ñu tuddee borom xam yan yàlla defal tawfiq ci ñu mën ko màggal bu dee